te ngoor gi ñu yor di ngóoruk iblis waaw faw ñu leeral waa Sénégal yi Sénégal ñu xam lan mooy ngóoruk iblis ngóoruk iblis ngóoruk iblis même boo nee jullit nga boo nee croyant nga ni musulman nga ni aspirant nga te iblis représentativité am nekk fépp ak ci ñëpp iblis mën naa fexe ba doo tàmbalee ci yàlla dëgg la waaw iblis boo yore nguuram mm-hmm. danaan la waxal lu la neex wëndeelu ba dellusi si nag soog a tudd yàlla du doon du ñu ko tey du doon ci ñoom li muy nguuruk iblis a iblis bu ko neexee ki muy ki la ki koy représenté ci sa wet danaan la dalay inspiré doo wax mukk bismillahi rahmaani doo ko wax est-ce que nguurug yàlla am na loolu c'est le commencement de tout acte pour les croyants et musulmans bismillah il faut sénégalais yi yeewu ñu nañ fi jóg ñoom tey tey néew ñi système bi nga xamante ni bi Iblis moo ko coiffé na fi jóg tey tey waxuñu loolu. ñun ay réforme la ñu proposé réforme yi mooy lan. mooy lenn lu nekk lu ñu amal lu nekk constitution bi amal ko ñu xool dal di xool waxi ku tedd ki settantal ko ci bul Matlabul Fawzayni ci Nahju ci Matlabu Chifa yi. wut ci loo xamante ni bi moom la ñuy tuddee moom la ñuy def li ñuy tuddee res euh, kii réceptacle référence. Mm-hmm. ñëw ñu tubaab yi dañoo bon le lépp de am na lu ñu baax la waaye baax lu ñu lépp ah. hmm? dem ak jullit dul baax le lépp asamaag ah, tubaab dëgg la dëgg la bu ko defee nag war ma ji nga xam ni loolu sama bopp laay wax mhm. man la concerné war ma ji nga xam ne dama koy bàyyi xel mhm. surtout ci ñaar ñii ci mag yi ak Idrissa ci jërëjëf Serigne Touba ji ma dégg seen làmmeñ te déggatuma ko xam nga moo tax mhm. li tax duñ ko mën di wax toujours mooy lii ma leen wax ba tey génnul foofu maanaam seen nguur yi day loo nguuruk àdduna day loo xam ni iblis moo ko coiffé boo bëggee wax tey lu baaxee bu ne la bu subaa bu ko wax ndax dégg ngeen ñu waxati ko hmm? ba élection yi jàllee léegi ñoom gis nga ci kenn ku toog ci rajo mbaab télé ni jërëjëf Serigne Touba waaye xoolal ku tedd keeg dem bañ ciy wut lañ ca doon wut itam teewul mu jox leen ko bañu amee lañ ca doon wut itam waxatuñu man nag looloo taxoon ma gën leen a jàpp new ma dinaa bàyyi kenn ndax man musuma bàyyi kenn waaye nañu bàyyi xel ci li may wax ndax je suis extrêmement conscient ana nabilun xam ngeen ni réew mi ki fi nekkal ku tedd ki nekk fi suyuux yëpp nekk fi sang yi nekk fi ma gën a xeebu jóg ni damay taxawal benn opposition radicale pour def face à ak ñoom xam ngeen loolu bala ñu cay egg lu ñuy seetaat lay doon dafa laaj xel étape par étape dañ leen di may tuuti ba xam lii ñuy wax ñoom dinañ ci d'accord wala duñ ci d'accord mm-hmm. buñ ci dul d'accord ñoom ñëpp ñu abal ñu parce que am na ñeneen ñu jàng ni ñoom ba noppi te gëm li may wax te mën a jiite réew mi lenn ay mën a am ñun waxu ay proposition la ñuy joxe de ñun néewuñu ak ay néewuñu dal na fi liy jóg ñun dañu ne rek nañu wut base de référence à partir de la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul def ko mbànd day attan lépp supporter lépp looroot sotti ci ñun loolu wax bu ñu ko nanguwul wóor na Ahmadou Bamba oh. dinañ gis mbir man Modou Mbacke maa wax loolu da <laughs> baal ma àq nag xam naa